dañ di ay jullit di ay euh, murit euh, weeru safar wi jot ñun waa association bi ñu profitoo ci ne weer wi nga xam ni ci la Cheikh Ahmadou Bamba demoon ci géej gi liggéey boobu nga xam ne da ci siggil der bu ñuul en général ñu ne weer wi comme ñëw na dañ ci fas yéene def ay bernde jaamu ci yàlla jox ko jaamu yàlla yi ndax Serigne Touba loolu mu doon def ngir ñun comme ñun mënuñu koo defal suñu bopp bu defal ñu ko weer wi ñu ci bernde nag di ci sant yàlla di ci delloo njukkal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul bii mooy la première édition mais man en personne yàgg naa koo def lii laa xam mais association bi bu mu juddoog léegi bii mooy suñu première édition waa Ouest Foire gis nañ ci seen bopp jàpp nañ ci ñu bëri joxe nañ ci seen koppar euh, weesu na sax Ouest Foire ndax jot nañ ay koppar yoo xam ne jóge na sax bitim réew

sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp góor ak jigéen surtout nag jigéen ñi soxna yi jàpp nañ ci liggéey bu baax a baax a baax jërëjëf